la ñu xam ne lii day santaane la bu nguur gi santaane mu ànd ak santaane islam suñu borom moo ko njëkk a santaane kon ñaari santaane suñ dajee nañ ko sante suñu borom ngir am na sax ñi ko mën a mën santaane loolu gom yàlla la loolu sant yàlla la islam ak santaane am tam buur boo xam ne santaane na ko laayee nañu ko biir docteur yi ànda ci ana lan moo ko gën amul ko gën kon lii yëpp biir la moo xam ne alhamdulillah ñu ko santee suñu borom suñ delloo ci yàlla tuub rek incha allah yàlla dinañu ko dindil istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama aleykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ngella tuub leen dellu ci seen borom seen borom aji jéggal kat la soo leen ko defe jafe-jafe bu mënoon a am yàlla dina leen ko teggil jafe-jafe tey bi ñooy jooytu mooy bii mooy mbas mi mbas mi tiital bakkan yi fi yor Alaaji Mbay wax na ko bari nañ surtout na si fii fii fi xam ne fii moo nekk cosaani réew mi mooy waa Banjul fii ren am na yu bari ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ngir mbas mi ñun ñi fi des yal nañ ci yàlla musal ñi nga xam ne dal na leen tam ñu ngi na ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla saafaraal ñu nga xam seen bakkaar na tam ñu ngi leen jàppee rek ay shahid lañ shahid mooy ñi nga xam dañ demoo jihaar rek dee su la neexee buñ la jullee buñ la sàng nañ la raab rek yóbbu a dem suuli la jaana tak yàlla gis na say jëf dem sa xol mi seetaan rek yàlla gis na la ñi itam rëy ñu seen bopp kenn du dof ba rëy boppam daf leen dal rek ci xam ne accident lay doon wala loo xam ne yàlla atte woon dina dal dal na leen dal na leen ñu ngay naan suñu borom subhanahu wa taala mu jéggal leen ñu ni fees yàlla yàggal ñu ci lool li bokk na ci lenn loo xam ne waru naa li ma ci bëggoon a junj rek nit ñi xamee ko ci mooy ku ci dee shahid la ci yoonu yàlla la dee na dem mooy ne par exemple ku dee woon tey ci biir géej nekk fu ay fan ba yaramam bi yëpp yàqu suñ ko génne la dinañ ko sàng dinañ ko sàng ngir kenn mënu ko laal ku dee ci safara bi yaramam bi yëpp xom kenn du xalaat ngir ne xaaral kii xaaral nañ ko sàng dañ koy raab noonu rek ñii itam lañ leen jàppee noonu ñu xam ne islam a ñëw jamono ñëw jamono ngi dem ba li xew li doon xew xewaat wala lu ko gën a garaw xew loolu su xewee nag nañ delloo suñ xew ñu delloo suñ ñun ñëpp suñ bopp suñ si si yàlla ñëpp ay gom dañ gom yàlla amul kenn ko gomut yàlla kon ñii nga xam ne ñu ngi waxantu nañ xam li ñoo wax réew mi ñoo ko bokk yëpp dañoo sàmm suñ bopp sàmm suñu réew kon nañ bàyyi seen xel xam ne gomuñoo gën kenn yàlla kenn buñ ci dugal politique lii moom politique la déedéet du politique mbir ma moo xam ne mu ñëw la nga moytu ma moytu la nga ragal ma ma ragal la ngir yàlla mun ñu musal ci lii yal nañ ci yàlla musal eh, lii mooy li gën a tudd loo xam ne bëggoon naa ko ci eh, yokk ci loo xam ne eh, suñu kilifa bi Alaaji Mbay wax na ko yaa imam bala ngaa dem rek balañ ñaari yoon tëj di nga tëj jàkka yi am na si yenn jàkka yoo xam ne dañ binda ne sooy dugg na nga raxas sa loxo am na ñoo xam ne ñoom jëlewuñ ko jële dañ ko am na yenn jàkka yoo xam ne sax waxoon nañ sa sax soo solul max. Hmm, doo dugg doo dugg si jàkkaay. ñu si bëri ñu si mer. si hmm. seen boppam. allahu akbar. lan la yàlla wax si loolu wala lan la Quran bi wax si li nga xam ne loi bi nga xam ne. dañ ko santaane nga seen tax jàkka ji nga xam ne fi ñoo jëlee ñoo ko taay xiral li nga xam ne comme ni ko suma ko waxee docteur yi ñoo ko santaane lii moo ñu soo mën a sowal. tey imaam yi lan ñu ngi santaar suñu borom subhanahu wa taala la moo xam ne santaane ba nga waxee kaddu santaane rek ci nga ëmb lépp. atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ngeen la toppaleen yàlla seen borom subhanahu wa taala moo ngeen bind wàccee lii ci yéen ngeen seen yonti bi sallallahu alayhi wa sallam lam digal te laaya ñu ko biir ngeen ñu koo leeralal ci diin islam ngeen toppa seen njiit yi li moy gom yalla deug deug ben bo baye ci rek gomulo yalla bobu lañ ko xam te nguur gi santane fi lo xamne da fay lor doomi adama lepp santa xamne santane nañ ko fi lo xamne ne njëriñ doomi adama lay nek don tay njëriñ moromam njori njëriñ society bi njëriñ réew mi yeb suñ ko waxe ko xamne liñ la waxal ne mun loko bul dugg jakk amna ñoo set yo xamne jakk yoyu war nañoo seet na jàkk yooyu am ñoo xam ne dañ leen war a tànn taxawal leen si jàkka ji ku matalul yii bul dugg si jàkka ji boobu lu war a am la imaamu ne ko soldat si wala police yi wala lu munta doon wala waa jàkka si boppa am seen comité bi taxawal fa ñoo xam ne nii ku matalu sarta yi doo dugga kum neex nga defaru ba pare liñ la nga ñëw dugga kum neexu nga la bul dugga lii mooy islam santaane e yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mu ne nañ coppa suñ njiit yi suñ njiit ñu ko ñu war koo eh, jëfe ku ko jëfewut bokkuloo da nga gomut yàlla rek gomuloo gom kenn yàlla gomuñu gom kenn yàlla luñ nekk rek mooy ne di wanewu la loolu wanewu la bokku ci islam kooku bokkatu ci islam parce que da nga beddeeku li yàlla wax li yonent bi sallallahu alayhi li eh, suñ njiit ji wax kon lii lu gën a am solo la lii daal kaddu la boo xam ne loolu ci leen nag loo xam ne war naa koo euh, tontu naa ko si ngir gàtt waxtu yi gannaaw bi sant yàlla julli ci sang-sang yi ganna waxtu dem na suñu xalifa ji wax na wax ji am na solo mooy alaaji mbay caw su ma rakk imaam lamin wax na wax ji am na solo waaye islaam mooy tibba jox sa boppa wala tibba jox sa morom nga jël géej la kenn mënu ko jeexal waaye li ma njëkk a wax mooy ci wàlli feebar bi lu tax mu gën a nattu ci ñun tey fa islam commencé foofu lañ bàyyi ci zamanu yant yàlla muhammadun sallallahu alayhi wa feebar bu ñëwoon ñu ne ci ndungu kebe la ñëw wala ci Banjul la ñëw islam santaane na ñi nekk ci biir Banjul yëpp buñ génn Banjul waaye ñi nekk area Banjul tam buñ dugg a Banjul boobu benn point la bi nga xam ne dañ ko bàyyi yàlla na yéen bula bu la buggee caw yar wala bula buggee teg nattu bu la waxee dara da nga ko teggi boo ko teggee na mu mun laa caw yar ndax lu nekk daf ko am fu mu koo jaaral lu nekk daf ko nattoon démba laf laa njëkk a bul def lii ndax lépp lu xew rek mu ne bi ma kasabat aydikum bi ma loola li nga xam ne kasabat faggu na ko ay diikum seen loxo yi wala mu ne seen tànk yi li ngeen defoon démba loolu laa leen a teg tey moo tax Qur'an jàngal nañu mu ne ñu ma asaabaka min hasanatin fa min allah lépp lu la dal mbaax rek ci yàlla la jógee ko kon bas mii mun nañu ma asaabaka min sayyi'atin fa min nafsika lépp lu la dal tam safaan na nga seetaatal sa bopp moo tax ulamaawu aarifuuna billahi ñu ne boo doon dox sax ba sa dalla nga fakkatalu dalla bi dog dafa am li nga def ii da nga xam li nga def wala nga ñàkk ko xam waaye am na li nga def yàlla dumee la lii ko li am solo mooy dellu ci yàlla la yonti yàlla muhammad digle woon li islam digle woon buñ ko defoon mun naa ci yàlla bu doon am fii dan du doon bari ni kon coono bi ñu dal tey du ñu doon dal waaye dañ ko jéggi ñi nekk fii di génn ñi feebar di génn ñi ñeneen jógee Sénégal ñeneen fi joge fi dem senegal ñeneen jógee senegal ñëw fii ñeneen joge réew tubaab ñëw fii ñeneen jógee fi dem tubaab delluwaat ndax waxtu boobu dinañ ko doon nangu duñ ko doon nangu kon loolu ñàkk nangu jooju buñ ko bañ yëgee ne lii xew na rek ñu pare parel suñ boppa mun na wàcc ci yàlla lii bu doon dal fii lu néew lay doon dina doon tax tey lii nii li ñu dal bi ñu ngi fagaru fekk lii yëpp daluñu te ñaareel war reset islam wax na ko démba lépp lu ñoo def ci fii li li nga xam ne boo ko seetee ci téere ñëwoon a démba mm-hmm. islam santaane na del tëj sa gémmiñ booy ngaa sa gémmiñ nanga ko tëj waaye boo demee ci jumaay walla jàkka yi sax mag ñeeg xale yi dañoo ŋaa seen gémmiñ rek ubbi léegi nag bu dee man maa ngi ànd ak jàngaro ma ŋaa suma gémmiñ ma walla kale walla ki walla ki loolu bokk na ci waxtaan demba liñ doon wax bala mbas mi di ñëw tii set set fu mu nekk rek li ci gën a bari jàngaru di ci bokk set nag nekkul set pour ci wàllu cer rek diidit gis nga set yàlla lu ma wax ne daf ko summarize waaye da ko war a analyse nga set lii lan la set dafa ne set waaye nekkul ne sa cër yi yi na set xool gi benn mooy war a njëkk set li ma eenel lamin Lamine ma eenel ko ki eenel ko kii eenel ko suma boppa eenel ko ñeneen yàlla ko gis i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluh dee leen jëf li ngeen a def yàlla mu ngi ko gis bu dee mbaax yàlla gis na ko bu dee safaan yàlla mu ngi ko gis waaye loolu da manqué na yii yëpp nag bu teglante bari yàlla teg ñu li nga xam ne dina nekk lu métti ci ñun waaye loolu tam benn soldaar ci soldaram yi lay yónni bi nga xam ne dina dal ci ñun moom rek mu jaaxal ñu lii jaamu yàlla la jaamu jaam la kom ñun yàlla moo ko ebal ci ñun waaye naka lañ war a def ba muslu ci lii la islam santaane yem nañ ko def walla jëm ci suñ kéemtalaay kantam kon yàlla dina ko wecci incha allah bokk boole ci nag astaghfirullah astaghfirullah la am solo la astaghfirullah ba am solo tam nekkul astaghfirullah làmmiñ de yàlla kenn munu ko nax yaa ngi ne astaghfirullah waaye la nekk ca xol ga yàlla moo la ko gis gën a gis loolu setut kon astaghfirullah boobu bokkut bi yàlla di wax na as istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara déedéet ndax boo ko seetee dinaa wax benn point julli ñu ne julli boo ko julli dina la tere jëf yu yi nga doon def yëpp yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na benn sahabi daf julli def waaye yéen mu dem def yeneen njaaxaan yi nga xam ne du noonu ba yonte yàlla Muhammad yigee loolu mu ne julli ba dina ko teree jëf yi bon ya waaye ban tere ban tere inna salata tanha anil fahsaay wal munkar waaye julli jooju mooy ban yàlla kese tax nga di julli te li nga eeneel sa bopp loolu nga eeneel sa mbokki julli di te nga nekk ku maandu looy wax yàlla tax nga di ko wax looy def yàlla tax nga di ko def julli jooju yàlla dina ko nangu julli jooju yàlla bu ko nangoo dina tax lépp li nga nekkoon ci ñaafte mu génne la ci mujjantal aya balam wax wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasnaun mu ne nag waaye loolu yëpp boo ko seetee zikrullahi moo gën zikrullahi boo ci demee Ah, fan yéen a man koo riit ci ñaari téere al téere tafsirul Qur'an bi ñooñu Jalaalayni ak beneen tafsir waaye ñu ngi ci wax way yi wuute ci wàlli lan moo nekk zikrullah waaye ñu ne bi ñeneen ñi wax nañ ñu sax zikrullahi be wax ci yonte yàlla Muhammad laaj ko ñu ne ko yaa ngay ne tudda wala tudda yàlla siikar yàlla waaye naka nga xamee nag ñi nga xam ne demoo ñaan jihaad yi bañ demee jihaad ñooñu kay am nañ daraja mu ne ne ñooñu dinañ am daraja buñ demee door seen jaasi ba effort ba deret ja génn yax ja jàmm dinañ ko boole ci ñi zikrullahi ñi nga xam ne zikru dañ di def zikrullahi ñu ne ñan ñooy zikrullahi ñu ne ñooy jàng alquran wala ñuy julli ñooñu nag la julli boobu tam di teree lépp li nga xam ne jëf jooju ñu ngi ko doon def ko ñu bàyyi suñ xel delloo nañ war a mel bañ melee noonu démba bete tey yàlla wécciwul zamanom bi dafa defar aduna si defar suuf si mu ne wala tufsidu fil ardi ba ada islahiya bu leen yàq suuf si gannaaw buñ ko liggéey be pare defar ko dara ñaawteef amu fa waaye yàqute am na ndaan nañ war a mel melu nooñu ni dafa def di ñaawteef yi nga xam ni ragalul kii xalifa la wala ragalul kii ci wàllu bu nekk nag so loolu nag yàlla mun nañu koo jàppee ba teg ñu nattu yónni benn soldaal ci soldaaram yi mu gete ñu te loolu mooy dox de inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla ne li ma def ci yéen jàmm ju mut yi dal wér yaram teraanga aduna déggoo nekk benn yërëmante jaamu yalla bu mut yi yeb bu dee ne mut la ma def si seen kaw seen biir du wecci dara waaye mu ni li bu ko wala melu nam wara mel man tam ma cieñ kon cieñ nañ yalla tam cieñ na waaye betey tey tuub de mbala bi saa si yàlla tey tuub dafa war bo tuubee lo mun def yalla nga riar rek te xool nga setta ca wallahi mu génne la teggil la la fa nekkoon démba mu islal la lu ees li nga xam ne lii sa teranga la ba di nga fàtte démba na melo nañ delluwaa ci yàlla dellu ci wa yàlla nag yaatu na torop buñ ko toppee fii fii la ñoo fanaan first of all sa njaboot ji sa jabar ñi nga xam ne yaa leen uuf yërëm leen ñoom tam ñu yërëm la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yërëm la la nekk ci kaw suuf ka nekk ci kaw asmaan yërëm la li hadis la ah léegi jabar yi jigéen yi soxna yi buñ yërëmee seen jëkkër yi lañ leen war ñu ngi koo def jëkkër yi yërëm soxna yi lañ leen war ñu ngi koo def njobo ji ci mun di faxee ko dina barke waaye yooyu yëpp tam manqué na yonti yàlla moom ma daf du dajale sahaaba yi mu ne leen dee leen yërëm seen njoboot ji waaye dinaa leen yëgal nan maa leen ëpp yërmande ci njoboot kon mante yërëmante buñ mante jàppante dimbalante buggante soppante jaamu yàlla bi nga xam ne du lammeñ allahu akbar pour kenen dégga laa ilaha illallah pour keneen dégga di yooyu yëpp yaa ngi ko tibbee sa denn ba mu door a génn bi yàbbi ko barke dina ñëw njëriñ dina ñëw kon ñu ngi ñaan yàlla lii benn jaamu yàlla bu ndaw a ndaw a ndaw bi yàlla yónni la amoon na ñi ñëwoon démba am ko jàngaro am na waaye ñu ne yonte yàlla Muhammad jàngal nañu tam wa kullu daa in lahu dawaaw mu ne jàngar bu nekk am na li koo faj iide ñu xam ko wala ñu ñàkk koo xam ndax kii tudde na fi benn aaya mu ne ma farranna fil kitaabi min shay lépp loo yàlla def fi rek am na li nga xam ne foofu ngaa jaar li ko man dem naa fi lopitaan suma njaboot feebar ñu ne ma garab yi boo ko jindut doo wér du wér waxtu jooju amuma xaalis ma dem seet li ñu wax eh de ngeer ma dem ma raxas ko ba mu jënd ko five dollars raxas ko ba mu set togga ko def ci sukur sanda mu mun koo naan mu naan ko three days billahi wallahi tallahi te bug bug noo sam bi duñ ko doon seet dafa mel ni bukk fa la jaar bi saa si yàlla bi amuñ problème bi mu amoon kon o kullu daa i lahu dawaawun waaye bokk na ci jàngaro bii nii li ko mën a ci suma xelaati boppa ci alquran istaghfiru jëggalu ci yàlla jëggu ci yàlla mu am solo léegi waxtu amut saa bi dem na maa ngi gërëm suñ naataango mi alaaji mbay ko baax la yal na ko yàlla yàggal suñ kanam mu ñoo jiite man ko barke salaatul faati kii itam suma rakkal Lamine imam Lamine ku baax la yal na la yàggal fii kër gi ci boppam jàmm la waajuma jàng fi bilaal yaa fi waaye ñooñu yëpp taan ah, yal fi yàlla def jàmm yàlla def fi teraanga def ko ci dë gi def ko ci dëkk bi def ko si adduna si moo tax seede ne bi tey saa si yàlla dinañ dee julli ab zazan suñ suñ suñ suñ kër bu ñoo ñaan na ñaanal réew mi ñaanal adduna si bu ñaanal julli rek bàyyi effar ñaanal ñëpp am jàmm julli da ak effar buñ amee jàmm rek jàmm am booy ñaan bu ñaanal sa bopp rek moo tax ñaan bi gën am solo ci Qur'an mooy rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar boobu koo ba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbi waajur yu màndu waajur yu màndu am yërmande te alhamdulilah rabbil alamin dañ nite ba tax toroxal nit du suñ jikko bañul mun datilim mun datilim bañul mun datilim Eh, bala maa ñëw ci interim bi maa saf as meyo ak alaaji mbu Aliou Mbodj saf meyo ma njëkkee bi ñu nekkee xaleel dëkk bi doo fi daan yar xar déedéet dëkk bi ci jamono tubaab yi doo fi daan yar xar ñun dañ doon na loolu ci tubaab yi dégg nga olof ne xoddeekul bala ngaa lakkale xoddeekul bala ngaa lakkale bon yàgg nañoo bañ tilim yàgg nañoo bañ tilim ma ñëw ci biir fi nga toog nii tey Pasiberan yaa ngi jënoo nduureen fii di mboobeen ñaari kër yi la dañ sax ci kër ci céeréer gi ci biir Banjul am fi jëmma am fi tur tur wi yëpp rafet la dama la bëgg a wax lu ndaw jamono ji nga xam ne dëkk bii Banjul bi fi tubaab yi nekkee ak suñ maam yi dañ dem be fi da ngaa wax 24 Lancaster koore noonu dem Njuufeen dem kër gu ndaw ba nga ñëw sekkeen ba nga ñëw bajaane ci boppi koñ bi ci jamono jooju foofu ci Banjul la de waaye fa la gétti gi newoon maam wax nañu ne gétti Banjul foofu la newoon buur Banjul xaritoom ak eh, eh, eh, kile góor gi Lat Mbengue di pa mam maam Ibrahima Ndour mi jur Ndoureen wax naa ne turu séeréer mooy Lat Mbengue yàlla ate nag buur dafa juboo woon na moom lool doon xaritam suñ paa yi yi di daje si fii ñoom taf si Biraan fii ci Passy Biraan moo tax kër gii di Ndoureen fi la fas yi newoon yi fi lañ daan ñëw fi lañ ne na isi jëree leen ñu jógee eh, Welingara ñëw fii ci boori jàkka ji nii ci biir jàkka ji ma toog tey bay nekk ilimaan ci biir jàkka ji boobu tuuti naa de boobu taax mii ci biir kër gi sappuñ ko li maa nekk xaleel yëpp taax mi ci suma kanam lañ ko sampa taax mii nduureen ci wetam ni jàppokaay bi fala fas si nekkoon buur Banjul daf daan war fasam tàkkusaan gannaaw buñ julee five ñëw fii ci paa yi ci mbaaxam ak diggante ma paa yi séeréer yi le ca lañ indi euh, ñu indi ne fii capital bi laa doon bon xa nag yi duñ mun a nekk fii góor gi ca leen jox bare bare ca Welingara ndaxa wax ji pôl la de waaye pôl ñi kewu fa de déedéet pôl yi ñoo ko tuddee noonu d'après ñoo doon sàmm nag yi jamono jooju waaye séeréer a ko sampa séeréer ñoo jagal dëkk boobu moo tax nduureen ñooy nekk alkaali foofu ba tey weli ngarab yi bon Banjul seti Banjul du tey yàgg na dañ ko fi fekka doon na dañ ko doon na ci rafetaay ndig xajaan waa Banjul suñ bàyyi dara lañ daan sol dañ xajaanoon torop dañ xajaanoon te nit ku xajaan du bëgg a tilim dañ xajaanoon set nangu ko lool nag baax ci gan olu seen boppa yaakaaruñ kenn lu mooy seen seen xam-xam ak seen doole di ko wéyee moo tax ñun ñi fi juddoo yaroo fi ñu ñu ooyee ndongo ndongo Banjul ndongo ñaawu doon de tey la de waaye ndongo mooy ku am jom ku am jom ku bugg a boppam am xam kilifam gëm diina gëm wërsagam di ci wéyee ndongo mooy ku dul fen du tapale xamul sàcc xamul wax ju ñaaw du jàmbu te du doon naa féq ku koy ndong dafa yàqu tey ñu ko owee neneen ku jaar ci ñaaw ñu ne ah, sawaay ndongo la waay déedéet waaw ndongo la ci olof bi ndongo skola ci tubaab ndongo la waaw waaye li tax ñu naan ndongo Banjul jikko yooyu tax may la ko wax duñ ko do doo doo ko jéem mukk da ko koo doon na di suñ baay yaa nekkoon ndongo ak suñ maam yi fii tilimut musta tilim koo gis ci ndongo Banjul ci ñun suma maas gi ci suma age group bi ma yi ñoom leen ñoom alaaji baabu soo yal na yàlla yërëm la ñoom tafaajub yàlla yërëm leen ñoom alaaji badu daw koo ci gis ci ñun rek am na bool xeet muy leel leel leel bii ma am nii dara waralu ko lu may enu mbalit ñun ñun enu mbalit lañ xamoon enu mbalit dos bi ni biti la woon ba pare da ngaa bare sa bunti kër ma bare suma bunti kër bi déedéet boobu suma maam bale dañoo bale ñuy lay bunti biir kër gi di lay suuf si daaj du la jam xeer du la jam yax du la jam dañ daan lay biir kër gi ñooñu xamuñ tilim mbalit mi buub nañ ko yóbbu ko ca dosbin ba ëppun troga ko jël si bodofel nañ leen ooyee bodofel bodofel ñoom leen bodofel te boobu time bodofel amu amuñu woon ci jagal eh, li fi naka lañ ko ooyee bat certificate <coughs> déedéet boo defee am doon ci baat certificat de dañ daan wóor biir dëkk bi boo defee koñ bu nekk am na boo defee bis bu fa war a ñëw pour visite ñu ko daan ooyee ñun visitekat bi lañ ko daan ooyee visitekat bi dina ñëw woor seet ba seet ndaa li ngeen di naan dinañ ko tànkatee ndax am na riglas riglas mooy walla njaxaan loolu doon na am fii ñun xamuñ woon tilim de